قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw loolu mbokk yi euh, incha allah day ñëwaat suñu euh, waxtaan ci aalamu jinn wa shayatin euh, di ñëw ci bunt yi nga xamante ne moom lañ tijji woon ci monde jinneeg seytaane yi Euh, waxtaan bi nga xamante ne moom lañ indi tey euh, gannaaw bi nga xamante ne jël nañu lan mooy li nga xamante ne mooy jinne ak seen ay euh, façon waaye nag jël li nga xamante ne mooy seen dundin tey nag incha allah dañuy jëlaat ci beneen bunt bu am solo ci bunt boobu nga xamante ne dafay dellu ci aalamu jinni wa shayatin te bunt boobu moom mooy halul jinni yaalamul gayba mooy euh, ndax ñoom jinne yi xam nañ li nga xamante ne moom mooy euh, kumpa euh, kumpa dina nekk ci ñaari mbir dina nekk ci li nga xamante ne ñëwagul waaye nag dina nekk ci mbir bi nga xamante ne mu ngi fi mais nag xamoo ko loolu noonu dina loolu la ñuy wax li nga xamante ne mooy kumpa kumpa boobu noonu nag dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne yàlla suñu borom moom la jagoo mooy li nga xamante ne dafay ñëw ëllëg loolu yàlla suñu borom ah moo ko moo ko jagoo waaye nag euh, ñu bari si ñi dañuy foog ne li nga xamante ne ñoom ñooy jinne yi euh, xam nañu li nga xamante ne mooy luy ñëw suba euh, loolu nag dafa nekk ab mbir bi nga xamante ne ñu bëri loolu lañ jàpp waaye nag demeewul noonu yàlla suñu borom moo jagoo li nga xamante ne mooy luy ñëw ëllëg loolu noonu tegu tegu ko ci loxo ci loxo kenn du malaaka du yenente du jinne du ah du nit ordinaire kon loolu ay mbir la yi nga xamante ne yàlla suñu borom ah moo ko moo ko jagoo kon ñoom jinne yi xamuñu li nga xamante ne mooy xëy bu xamuñu li nga xamante ne mooy kumpa comme ni nga ko di déggee ci nit ñi ñu ne jinne luy lu paase xamatu ko waaye luy ñëw après la xam loolu noonu nekk na ay mbir yi nga xamante ne ñii dañ koy fay di wax mais nag dara teguwu ci nekkul li nga xamante ne mooy lu wër lu wér moom mooy li nga xamante ne luy ñëw ëllëg luy ñëw suba loolu yàlla suñu borom ah moo ko moo ko moo ko moo ko jagoo moo tax yàlla daal di wax ne qul laa yaalamu man fi lsamawati wal ardi alxayba illa allah wa ma yashuruuna ayaana yubaasuun yàlla wax ne waxal ne kenn xamul kumpa moo xam ñu nekk ci kaw asamaan wala ñu nekk ci kaw suuf ñoom ñépp kenn xamul ci li nga xamante ne moom mooy liy ñëw ëllëg lu kenn na xamu ci luy ñëw suba te ñoom sax yëguñu xamuñu kañ lañ kañ lañuy dekki kon ah, li nga xamante ne moom mooy ah, kumpa yàlla suñu borom ah, moo ko moo ko moo ko moo ko jagoo moo tax ci benn aaya dafa wax ne wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masaabiha wa ja'alnaaha rujuman li shayatin wa aatadna lahum azaba as-sa'ir yàlla wax ne euh, taaral nañu asamaan àdduna ci ay làmp mu namm ci biddéew yi ñu def ko nekk ay euh, misin ñeel li nga xamante ne moom mooy seytaane yi waaye nag ñu préparé leen ñoom seytaane yi li nga xamante ne mooy mbuggalu sànir kon ñoom xamuñu li nga xamante ne moom mooy euh, kumpa moo tax ñëw ne ci li nga xamante ne moom mooy ci xadisu ibnu abbas ci xadisu muslim ibnu abbas nee ne benn jour dañu toogoon ak yént bi sallallahu alayhi wa sallam rek benn biddéew daal di fàq mooy li ngay fa di gis par guddi biddéew jékki rek daal di daw nee na toog nañ ci benn guddi benn biddéew daal di fàq ci asamaan nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne lan ngeen doom wax su fekkee gis ngeen biddéew bu fàq ci kaw asamaan jamonoy jaahiliya mooy avant islam soo leen gisoon biddéew bu fàq ci kaw asamaan lan ngeen doon wax saxaar bi daal di koy wax ne ko ñun de avant islam suñu gisoon biddéew bu fàq lan la wax mooy waa ju baax juddu na wala ju baax ah dee na yonent bi saa sallam ne leen déedéet nag loolu nag demeewul noonu lu am bu am mooy seytaane yi dañuy tegloo di dem ci kaw di dem ci kaw asamaan ngir déglu waxu malaaka yi ah, ndax yàlla suñu borom su nammee benn mbir daf koy wax ku koy njëkk dégg mooy jibril jibril di ko jottali ci malaaka yi bu di ko jottali ci asamaan yi ba ci asamaanu àdduna bi muy asamaanu benneel su ko defee jinne yi nag di yéeg ci kaw asamaan di sàcc information yi nga xamante ne malaaka yi dañ koy jokkalante seen biir su ko defee ñu daal di wàcc di ko jox buxaaba yeeg gisaane yi su ko defee ñu xëy naan lii mooy xew suba nawet nawet bi nii lay demee fekk dara nekku ci li nga xamante ne moom mooy euh, dëgg yéeti bi nee na benn dëgg la mooy malaaka yi li ñu wax loolu mooy dëgg waaye ne seytaan yooyu ñu tasaare di ko jox gisaanekat yeeg buxaaba yi saltige yi loolu noonu yéeti bi nee na loolu yëpp ay kàcc la kon ñoom jinne yi xamuñu luy ñëw li nga xamante ne moom mooy kumpa bokk na ci lu la koy gën a wan mu yént yàlla suleymaan yént yàlla suleymaan moom mi nga xamante ne yàlla suñu borom daf ko mayoon muy wax ak jinne yi di leen liggéeyloo di leen ah monete di leen taq hmm? ba yàlla daal di wax ne waa kenn sañul bañ ndigalu yént yàlla suleymaan yént yàlla suleymaan moom faatu na ay jamono jinne yi di ko continuer di ko doxal mission am di ko liggéeyal ah, te ñoom xamuñu yonent yàlla Suleymaan ah faatu na yonent yàlla Suleymaan fu mu taxawoon di julli la faatu ah wéeru ci li nga xamante ne moom mooy ci bantam ba di di julli fekk faatu na bu yàgg jinn yi di ko romb góos duraat di ko liggéeyal ah yàlla daal di wax ne law kaanu yaalamuuna alxayba maa labisu fi alazaabi almuhiin yàlla daal di wax ne ñoom jinn xam nañ kumpa kon duñu des ci liggéeyal ki nga xamante ne moom mooy ku faatu ah ku leen sant liggéey faatu na bu yàgg ñoom ñu continuer di ko liggéeyal te ñoom xamuñu ko yàlla nee na su fekk kon ñoom xam nañ kump kon duñu de du ñu nekk di continuer seen liggéey boobu nga xamante ne ku leen ko sant faatu na kon ñoom jinne yi xamuñu li nga xamante ne moom mooy ah, kumpa kumpa dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne yàlla si borom moo ko jagoo ah, dina ci ah, jël nag ab tuut jox ko li nga xamante ne moom mooy yenente yi dafa wax ne aalimul gaybi la laa yuzhiru ala gaybihi ahada illa liman irtada min mu ne mooy yàlla suñu borom nee na mën may xam li nga xamante ne mooy kumpa kumpa boobu nag duma ko jox kenn lu dul ñi nga xamante ne ah, jagoo naa leen ci yenente yi ñooñu pensaay ma xamal leen li nga xamante ne mooy luy ñëw ëllëg mu yenente yi ku dul ñoom nag ah, xamoo li nga xamante ne moom mooy luy ñëw ëllëg waaye nag yi ngay fay di gis ci jamono ay gisaan ak yooyu yëpp xamal ne seytaan moo nekk seen ginnaaw di leen di leen waxloo waaye nag nekkul ne xamuñu li nga xamante ne moom mooy kumpa te ñoom ci ay jinne la ñu dimbandikoo te jinne yi euh, xamuñu li nga xamante ne moom mooy euh, kumpa kon bunt boobu noonu lañu indi woon tey euh, ci li nga xamante ne moom mooy ci aalamul jinni wa shayatin wa jazakumullahu xayra assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu